fii gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal tomb bu ñuy fàttalante dañu koy tënk ci xew-xewub jamono gannaaw bu ndokkeelee jullit yépp ci bis bu mag bi nu bàyyi ko luñ ca def te yàlla tax yàlla na ko yàlla nangu muy guddi gi ñu doon fàttalante gane àdduna ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu yaatu ci Sénégal ñu bari nag ca ña sañoon a wax biral nañ bu baax a baax lii nga xam ne moo xew ci jamono te njariñ nekk ca waaye gàllankoor yu bari nekk ca ñu di ko wax shabakatu tawasul al ijtimaai social network ñenn ñi di ko wax shabakatu taxaasum al ijtimaai muy foofu nit ñi di daje kenn ku nekk boo gisee mi ngi ci mi ngay yor ci loxoom loo xam ne day wax di sànni wax ba mu neex ko mu sànni mu dem léeg-léeg mu jaawale ko mu dem foo xam ne bëggu fa mu dem fa kilifa yu bari nag soññe nañ ci moytuloo nit ñi yim àndal waaye nag bokk yi li cay weesu weesu na ba noppi xanaa li ci kanam li ci kanam mooy ñu xam ne nit ki li war a jiitu ci moom mooy pas-pas bu dëgër muy lam war a fas nag muy al imaanu billah ak yam àndal loolu nag li koy maye mooy ki muy nekk ci moom dañ koy waajal yooyu ñuy wax ndaw ñi ñoo gën a bari ñi koy jëfandikoo ak seeni mag mag ndaw ñi ak seeni mag ak ñooñu ña leen mag ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ku nekk ba am doom soog koo tàmbale yar yar weesu na ci moom ñu ne ko ana fu ñu koy tàmbale yare mu ne da nga koy wutal ki koy jur ba noppi da ngay wut ki lay jural say gone suñ leen juree ca nañ leen war a juree ak ka leen war a jur nga jëkk leen a jàngal kan mooy tabaraka wa taala ca la ci nit mën a xam moom la sëriñ bi bind ci am mbindam am na téeréem bu mu tuddee maxaaliq maxaaliqu niiraani wa mafatihul jinaan doon téeméeri bayit ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett nee na ku fàggu njaboot nam ko war a fàggoo ak fam ko war a fàggoo ba yàlla jox ko ca sabab la ko yàlla jox ko ko lam war a jëkk a def ci moom mooy mu dàngal ko tawxiid ana nu ñuy xàmmee yàlla yi yàlla ju yàlla nangam yàlla bari na bari nañu ko daan tudde ilaahu nangam bari woon na waaye ki nga xam ne mooy xaaliqu samawati wal ard badiu samawati wal ard allazi yuxyi wa yumit nee na nañ ko ko jëkk jàngal su saxee ci xolam dara du ko mën a fëkk ba di ko jax-jaxal ba muy wax di sànni loo xam ne dañ koy dañ ko koy xoole ba kilifa gu jóg buy wax ak mbooloo mi boole ko ca boo demee ci téere ba danga ci fekk mu ne na ngeen xam ne te ñi ma tax di wax mooy ñi nga xam ne boo leen waxee daañ dégg yeewu nañ muusuñu waaye dañoo yeewu ne ku wuuteeg dëgg gaa yu baax yi génne nañ ko ci seen biir donte ma nga ci seen biir defe ne ma nga ca te bokku ca وليعلمن كل ذكي وبليد أن الذي يخالف الحق طريد طريد mooy koo xam ne seytaane yàkkamti na ko sawara yàkkamti na ko tariid bu dee ci yi dox ci kaw suuf si moo yiy wër luñ jàpp ba rey ko lekk ko nee na koo xam ne nag fu dëkk féete fa la dafa day du mooy jëm feneen yéen ñi ami xel na ngeen xam ne foofa du fa ñu mel dañ koy dëgg mooy lu mel naan mu ne ku am njaboot na ko tàmbalee jàngal luy lu mu ko mën a jàngal na ca tawxiid jiitu su ca tawxiid jiitoo lu muy def wala mu di ko bëgg a wax dana ne kat man nekkuma fi man kenn maa yakun min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum dana ko gëm waaye bu ca xamee lam ca mën a xamit ñu jàngal ko lan mooy fiq ni ñuy déggee lislaam ak ni ñu koy jëfandikoo su boobaa nag mën naa raw yeneen yi ñëw yu bare bari fekk ëkk la fay fekk ëkk moom lu ngelaw bari bari bàyyi ko fa waaye nag safaan ba mooy safaan ba safaan ba mooy jëkk koo jàngal leneen wala jëkk koo wan leneen su boobaa aw xob lay doon lu ñëw mën na ko yóbbaale wal xaqu badu badu l abdi bi tawxidi wal fiqhi an tasawufin mujidi fa saaricu lil ilmi ajmaina li wajhi dil jalaali qaasidina soo ko juree ba noppi ba jàngal ko loolu yi leneen lu mën a jàngat na ko jàngi te yàlla rek tax qabla tasadduri wal infiraadi bin nafsi wal atbaaci fi tamaadi bala moo xëy xëy rek ne léegi toll nit ñépp léegi su boobaa suñ ko jàllewu foofa bu xëy na léegi toll nit ñépp mooy waral yi ngay gis lajj-lajj yi ngay gis saa bu waxee loxo dem gémmiñ wala saa bu defee loxo dem gémmiñ loolu lu koy teg mooy bakkanam rek lay xam lu neex ci moom rek bakkan ak yam àndal ndax kat nee na lëmbam lëm yi dab yi dab nit soo gisee ci jamono ñàkk pas-pas bu dëgër dong la pas-pas dafa nekkut pas-pas mooy fondation ci tabax su amut ci tabax lu tabax ba rafet-rafet du fa yàgg الظلمات بدعة بدعة بدعة اعتقادي تكف أنوار اتباع الهادي léeg-léeg nga dégg ku ne njàngum léegi mi amul solo ndax lii ak laa sëriñ bi nee na bu leen déglu kooka ku la wax ci njàng lu ñu njàng baax na nee na man ko gannaaw wa man nahakum an taallumi fa nahyuhu ila ddalaali yantami إذ كل من في الزمان منع من التعلم فإنه دعا لبدعة شريعة إذ العمل إن لم يكن بالعلم شابه خلل إذ كل عامل بلا علم يرى فسعيه مثل هباء نثرا da ngay dégg ñu ne jàng woo xam ne kenn du la ko laaj jërtu sonn dem leen rek liggéey mu ne nag liggéey boobu xam-xam moo koy jiitu mu xam la muy liggéeyee lan la war a doon lu ñu war a liggéeyee la waaw wala déet su fekkee jàngaluñ ko tàmbalee ci tawxiid day mel ne ku ay gëtam neexul mu yor ab radu rek day xëcc muy ñëw rek xamut lu mu war a xëcc ak lu mu warut a xëcc te léeg-léeg mu xëcc dara mu taq ci la muy xëccee mu bëgg koo tàggaleeg moom lëf ne ko cuut te du ko bàyyi ba ba muy faatu moo tax pas-pas mooy li gën a am solo ci nit li nit ñi war a dénkante seen diggante ndax bu xasee ba dëgër ci nit dara moytu ko faa jëlee nit ki moom dara moytu koo dugal dara moytu koo génne ndax saa bu taxawee bu ñu ko bëggee dugal danaan yàllaa ngi jàkkaarloog man ndax yàlla su fekkee dañ ko bëgg a génne it ca lam nekkoon te yàlla te mu wóor ko lu baax la ndigal la ca am ndigal sa borom mu ne yàllaa ngi may gis rawati nag ya cay topp ak yi ci topp ci ay fay dana ko jàkk ne yàlla moo ne woon ko def nangam mu fay ko nangam moo tax ñi nga xam ne dañoo amul njaboot wala ñu jox leen keneen njaboot jox leen nañ xam ne dem leen liggéey góorgóor leen ci liggéey bi baax na de waaye daa am lu ko war a jiitu nañu jiite la war a jiitu teg ci la sa war a tege bokk yi danañ gis ba tey yi ci télévision yi di déglu ci rajo yi kuy yëgle doomam juréer mu tiit ca lool duutu sa la lekk duutu sa la naan duutu sa la jàmmante ñëpp jóg ni moom képp koo xam ne sa da ngay jàpp ne soo jógee dana ko neex mu jàppe la waayam danga jóg wër la jikko waaye bokk yi kañ lañ mas a gis ku woo ay dëkkandoom naa leen kaay leen ci xale bi daana nga wut a julli ñëw na kay leen wut la ma sama doom juleet moom bari na daa jóge woon fi di jàngi ak gut fa mu doon jànge ji wala fa mu doon jàngale dawe sonn ca lool rajo bu ne mu yëgle ko ca waaye kaay leen dimbali na ci sama doom yi ndax daana wutu julli moom ñi koy ñi ñaan dimbal bariwul mu mel ne daal léegi dañuy yafal rek yafal yafal nag ak jur lañ ci xam waaye bokk yi nit duñ ko yafal ci lu ñuy lekk lekk ak naan kese kese ak bu wér dee nga faj ko rek bàyyi mu dem waaye dañ koy yafal ci gëm yàlla gëm njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo def taalibe ñu di la joxañ fa Sëriñ Tuubaa joxañ te muy lu wér loo xam da ko bind waaye góorgóorlu leen ci njàng mi góorgóorlu leen ci liggéey bi am leen jom fas leen jom ba am ci ñoom dañuy jékki-jékki rek gàddaay jóge ci dëkk dem ci beneen dëkk ndax mënatuñoo digg soññee leen di soññ ci gaaw leen liggéey ndax ngeen am dara waaye du ca bokk mukk fu leen fekk fu leen waxtu julli fekk na ngeen ko julli loolu moom ñëw na moom luñ ci sonal lu ci njaboot di nit di sonn ci njabootam yàlla ñu ci yàlla musal moo tax saa su ne dañoo war di ñaan yàlla mu musal ñu ñu bañ a bokk ci ñi yàlla naan ci seen dund dañoo fàtte woon yàlla fàtte yàlla mooy saa bu ñu ne yàlla rek mu nga fàtt say nopp doo bëgg a dégg bu ñu ne xool leen te lépp di jëm ci yàlla ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ñu fàtt seeni nopp yàlla ñu ci yàlla musal mooy yàlla di wax ne waa takunu kalladina nasu llaha fa ansahum anfusahum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ci njàngaleem daana taxawe bu baax di jëmbat guddi ak bëccëg ci xooli saxaaba yi radiyallahu anhum rawati nag ña ci di ay ndaw ndax ñi nga xam ne dañoo doon ay mag dugg si ci lislaam seen pas-pas daa mel na ñoo ko war a daasal seen bopp ndax ñu ñëwal seen bopp ñoom yonent bi lañ ne woon dan lu mu def ñu def ko rek waaye yonent bi ñoo ko ci gënoon a ñor mooy ndaw ñi ndaw ñee ko ci gënoon a ñor ndax ñoom ëllëg si biir fu mu dem ñoo ko fay yóbbu moo tax am na ku xool génn kilifa ba yàgg mu ne ko sëriñ bi dimbale leen sëñ Tuubaa te rus sëñ Tuubaa te am kersa seen digganteeg sëñ Tuubaa kilifa ga ne ko lan ndax lan mu ne ko dama xam ne yow mii li nga yore catuwuma la nag waaye sonnoo ci te sëñ Tuubaa daf la ko defal ab yóbbal li daaril karami jam waxoon ci téereem boobee rik bul fox bul caaxaan bul yàq alal ji rik na nga xam ne ki la koy jox da koo bëgg am lu muy xool ëllëg moo tax mu jox la ko jàpp ne bu ko dencee ci yow dana dana sakkan dana dana dana dolliku yàlla dana ko fay ëllëg jataay bu mujj soppi ko lool waaye kooka dafa dégg bu baax ñàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lëng ku ñuy wax Maaz ibnu Jabal ak Usaamatu ibnu Zeyd ne leen yéen ñaar ñi ndax xam ngeen li war diggante jaam bi ak boroomam ak li nga xam ne yàlla daf ko warlu digganteem ak jaamam yi ñu ne ko yàlla ko yonent bi ñoo ko xam maanaam daal xamuguñ ko danañ ko xam ndax ñi ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko yàlla xamal mu ne leen li war jaam bi ci diggante ak boroomam de mooy muy jaamu yàlla te bañ ko bokkale ak dara su boobaa yàlla warlu na ci moom du ko mbugal ëllëg seen xol ya sedd guy ndax ñoom ña nga woon ca yoon wa di ñot ñoti Muaz ne ko ndax mën na ma dem wax ko gaa yi ne leen bég leen ndax li ngeen def am na ak pay ëllëg mu ne ko déedéet léegi leen nga bigal nit mu far bàyyi lam jàppoon defe ne àgg na te àggagut fenn léegi nga wax nit lu neex mu far tayal loo ko ci jaamu yàlla am yàlla ñu ci yàlla musal moo tax ndaw ni muy yàkkamtee buy def soo ko yónnee day daw soo ko wooyee bu ñëw day daw soo ko mayee dara buy bu koy jariñoo gi day daw kooku nag bokk yi moo mat a gën a taxaw ndax ëllëg kat ab layoo ab layoo mi ngi ñëw suñu diggante ak suñuy ndaw ndax li alquran di wax ne uxsuru alladina zalamu wa azwajahum wa ma kaanu yacbuduuna min duni illahi fahduhum ila siraati aljaximi ab julit mën naa tax ab jullit mën na ko tax a bañ a jóg maanaam jullit la mën nañ ko bañ a moom waaye attiwut jullit laam du jullit waaye ku def jëf ci rek lay atte mooy koo xam ne la ma waroon def defu ko rek la ma waroon nekk nekku ca la ma waroon wax waxu ko ña ma waroon wax waxut ak ñoom su ko defee nag loolu mooy ñii ñëpp fab leen leen yóbbu leen fa kenn bëggutu dem yàlla nañu ci yàlla musal ñii fab leen leen yóbbu leen fañ fañ bëgg ku fa dem yàlla nañu ci yàlla boole fa ñuy yóbbu nag ña ña nga xam ne fa ñuy jëm ñëpp fa bëgg a jëm day am mbooloo mu taxaw ci ñii nga xam ne dañoo war dem fa kenn bëggutu dem ne ah yàlla ñee di dem day am na ci kok su demee fee muy dem danañu jaaxal ndax fee mu jaar bay dugg fee suñu ko waxoon ñu dem fa ne moom yàlla ne ah kon nañ taxaw ñu xoolaat seen mbir waqifuhum innahum mas'ulun moo tax mas'uliya muy ab yan lu mat di sàmm la ndax ëllëg si biir dem ba defee ne dem aljanna des yàlla ne waqifuhum innahum mas'ulun ñi leen tax dem fa la ñii ci lañ bokk tàmbalewaat a àttewaat xamoon na lépp de waaye àtte moo laaj loolu dangay laaj ki ngay àtte ak kam joteel laaj ay jàmbur ba xam luñ jote ci la ngeen xam da ngeen ca xam yéen su ko defee nag muy wax sànni yooyu xew kilifa yu mag wax na ci yal na leen yàlla fay seen jaan wàcc na léegi nag mu des képp koo xam ne am nga njaboot nga fexe ba ñette weesoo gut mooy ñi nga xam ne amagoo seen wayjur nga wutal leen wayjur wu ko mate woo xam ne kenn du ko xool sëgg ne lu ko dugal ci kii soo ca amee njaboot it ndax nit sabalu na ko ba tàyyi nga sant ci yàlla na nga ciy sant yàlla nag mooy teg ko ci aw yoon nit sabalu na ba tàyyi amatu njaboot suñ na nga leen teg ci yoon da nga leen di jëkk a jàngal alxuraanu karim jàngal leen tawxiid jàngal leen fiq soog leen a yeew yi su boobaa sam xel dal na mën na caa dal waaye sa jaan wàcc na saa bu xamee fi muy teg tànkam su ko futigul nag yow tegloo tegloo woon nga ko fa nekk neewoon nga ko fii mooy yoon te yaa nga ca sa jaan wàcc tey moytu lool sant leen yàlla ndax lépp baax na bokk yi lépp baax na yàlla man yàlla mën na ko waaye taxul mu sottal lépp ginnaaw ku xëy da nga wuti dara lu teewoon mu toog ne yàlla ba yàlla lépp sott na yàlla sottal na lépp ku wéradi dana faju ji képp kuy bëgg a dem dana waaj lu teewoon mu jàpp ci yàlla yàlla yëpp yëkkati ko fii mu nekk ne ko tegg fa mu jëmoon lu ci nekk ay sabab la waaye sabab yi gën a mat a sabablu nag mooy ak njaboot ndax bu ñu sababu lu bu ñu wër sababu njabootlu ak njaboot doo fi nekk doo am yow bay sabablu njaboot waaye nga sabablu ko ca nang ko war a sababloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek nee na woon kooku bu gënee àdduna ba daal na nga tàmbali liggéey bi nga xam ne jàng ay wax la di la wan ngay dégg loo xam ne doo ko gaaw a gis waaye na ngeen tàmbali jëf ji nag ci saasi teg ci tànkam bu mu ko bàyyi mooy fi muy waxe ne muru awlaadakum bis salaati digal leen seenu njaboot ñuy julli saa bu ñu amee juróom-ñaari at du takk ko taxawal waaye saa yooyu taxawal rek ne ko ñëwal nii waaye su amee fukki at fekk tàggatu na ci ñetti at yu mat sëkk su ko defut nee ko lu la ko tee def doonte waragu ko waaye lañ ci jublu mooy dañuy bëgg saa bu ko waree ni yow fekk miin na ko tàmb na ko jàngal nañ ko it mu yóbbaale ni mu ko war a defee ak la koy yàq dama tudd julli rek waaye yëpp ponk yëpp la ak ndaw am na lu ci sëriñ bi waxoon daf ne maam Cerno moytu leen néegi soxna yi ngeen di dugg ak génn am ku ci na tonet ne ko moo ne néegi soxna Fati Isa dalay dugg ak génn mu ne ko moo ma tax di wax ni nga ko xame laa ko xame waaye bokk yi ku lay tere nga dugg sa néegum ndey tey gone day topp si ginnaaw xam al ilmu imaamul amali wal amalu taabiu jëf mooy moom la war doon ci xam moo tax bu ñu xëntewoo jàng kese kese bu ñu xëntewoo liggéey kese kese buñ xënte woo it ku ci doomam réer ñëpp yëg ko waaye nañ xënte woo ku ci doomam julliwut soo waxee wax mu tëb mu woo ay dëkkandoom ne leen nanguwutut a julli fii mu nekk ni waaye it jàngal ko tawxiid ba nga xam ne ëllëg si biir métier ma muy tàmm di ko li tàmm di ko liggéey it dana ca xam fam ci teg tànkam fa ca yàlla yamlu yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin